gaaw leen. baax na gars yi bu ngeen paree. pare ngeen. ayca lu mu ni maam waaw liiru jàll nuyu nañ la ziara maa ngi lay delloo fay delloo fay bu baax di leen nuyu di leen mm. fekk la fii kër sëñ Massila Diop Massila Diop muy muy waaw diggante ak moom waaw c'est normal bis bu ne lay fay uh-huh. dafa nekk ku baax keroog barki démb Ndiaye ba ma xewlee gis leen sama xew uh-huh. ah kon man su xewlee lu mu jàpp dama ko war a bàyyi ñëw ndax man ku ma yëg ma yëgul ku ma yëgul yëguma la looloo waral ma ñëw uh-huh. tey taxawal ko Massila nekk baax tamit ku yëg doomu aadama fu mu taxaw fu mu dajeeg yow jox la wàcc wàccuwaayam kon su xewlee lu ma jàpp dama koy bàyyi barki de moo jaay laa xewle mu ñëw teewal ma moo tax tamit ma ñëw teewal ko tamu mu nekk nit ku baax nit ku gore vraiment euh, euh, xam nga nit lan moo ci solo ci doomu aadama dara jula ju la yàlla may mhm. nga wàcc sa bopp maaseg nit ñi mhm. koo gis jox ko wàcc waayam mhm. te moom noonu la mel moo tax nag su xewle nii rek lay mun a mel lu ma jàpp dama koy bàyyi barki de moo njaay laa xewle mu bàyyi la moo jàpp lépp ñëw teewal ma ah uh-huh. waaw ñëw teewal ma kon nag su xewle dama war a teew noonu la ma demee uh-huh. di ko nuyu baax di ko ziar di ñaanal doom ji ñu tudd yàlla na dund ba ñoom ban fekk njariñam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bett moon laa ilaha illallah moom rasulullah damaa ñëw fekk ñu tudd ba pare nag uh-huh. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla na dund ban koy ñaanal soxna ñi doon jox information ne Modou Lo la ko tuddee noo yëngu non yëguma ko ah dañoo waxoon ne Modou Lo waaw su ko ah, neexee am nañ pay droit ndax yoo xam diggante mag moom loo rek voilà noonu la de du maa ngi ni moo njaay laa doom balla de mu nekk sa diggante moom rek loolu la demee rek uh-huh. waaw su ko neexee uh-huh. tuddee mo waaye Seydina Muhammad uh-huh. la ngeen ngeen mi def loolu dara fay ko mm-hmm. loolu dara fay ko te ay Moodu rek jeex na yaa ko wax de Modou Lo tey jii su ko waroon tuddee Modou Lo mhm. ne ko ne ko euh, Seydina Mouhamed laa ko Modou kon kay benn la rek sala sala uh-huh. moo gën mais daañ daañ liiru dafa jël waa kër Modou Lo yi non non saf nga fi sàpp waaw maa tey déedéet waay ah oui a dégg a dégg maa benn affaire moo am sport la mhm. ñëpp dañuy capturer Modou mhm. Lo bëre naag Balla Gaye mhm. lu nekk wax naa la dëggeer lu ne wax ko lamb moo tëra sport la tey ma yekkul amul bi lamb lu ne ma ñaawal gauche ak rek man faral Modou Lo rek la waaye du leen mais ñëpp su ma doom di nga la tax nga far moom waaw maa tey su man maa su daanee booy ñaa ma may sama doom loolu maa ko wax lan mooy maa ngi ci maa ngi ci moom la des mais mais naqar naqar yi nga xamante ni booy ñaa tegoon na la ko. waaw est ce que liiru warul woon préparer beneen ma nee naa la mais pas muy dem ci nee naa la des mu Lo mhm. mhm. dafa xaati jur boo fa ñëwee ah, waaw gars yi ne Modou Lo ma ñàkk mhm. suma ndek suma baay sama yëg-yëg mm-hmm. ak sama far far mm-hmm. avant lamb di laa ko wax. Mm-hmm. lan mooy ay joxe xaalis na leen bàyyi affaire u naafeq yooyu yow xaay. Modou su ma surtout Tata Boy la ku baax la ku yaru la ku joxe cër la vraiment tey mënoon naa fa dem ñu xoolee ma beneen bët mhm. waaye dama ñëw mu ouvert mhm. ñëpp ubbil ma mhm. waxtaan wi ree xambaraan ma mu neex daal sama kontaan mais bi ngay yëg information Abdoulaye Diop xaas ne day tëgg Focke Balde ba pare paase la faral looy wax ci loolu bu wér ko bëggee maa ngi ñëw yaa ma njëkk a jox information dama xaas nee na paate la faral par euh, sama waayal goro la waaw maa ko may jabar sumbul ah, waaw sumbul sama rakk la par su la euh, xaas su la waxee lool day lay tooñ rek neexal waaye waaw barke sëñ Bamba xaas xam na man xam naa yàlla xam na mais moo xaade moo xaas xaas xam na man xam naa kanti mu moo wax loolu yow booy Seck mbër mu yàqu nga saytaan dafa yaa nga soo amoon jom doo fi nekk téye micro yow soo amoon jom doo fi nekk téye micro da ngay dem di dóorante ay kur fañ ragal moo tax nga dem di téye micro waaye déglu ma mbër nga mbër nga woon soo amoon jom koo fi nekk naa da ngay téye micro da ngay dem continuer ca làmb jëri làmb waaye da nga yaakaar ni nga mel ñoonu la ñëpp mel booy da nga yaakaar ni nga mel yow noonu la ñëpp mel ah ñu wut woon booy ah ñu wut woon tapet la moo tax mu dem téye micro waaye mbër la woon kuy bi kala leen kees bu ne xamoon doon ah waaw xam nga dama ne woon ci moom laay commencé moo tax c'est normal moo tax lu ne mi ngi koy def li muy def yëpp xam naa ko yow suma rakk nga yow suma rakk nga Zil Balde su defee loolu su ko neexee am na fi ndax dama ne ko ci moom laay njëkkee illallah ci moom laa njëkkee ci moom nga laal keneen su ma tegee jógee teg ah, Paata Balde ah, teg kii non non ah, Ama Balde su ma jógee Sil Ama laa ci teg teg ci Jacob teg ci Pokola ak Demba nga bëgg a tas ak Demba oh, oh, Demba Babacar sama doom la ma bàyyi ko ak waaye doot cee teg seen màgget nga xam ndekki bi da koo raw ak nga raw ko muy Paata Balde <laughs> <laughs> waaw waaw gars yi journaliste yi nag sa ginnaaw man lenn mën naa faral ku mu neex na ko amul ko neex waaye na ma xam naa ne am naa ni soppe am naa ñu ma bëgg ay diaspora bi ay waa diaspora mais mais mais attends Lirou na paate bandi la man de tàppal nga tàppal ragal nga gis nga nit ki li nekk ci yow rek chaque jour ngay wax ci keneen yow tàppal nga soo amoon jom soo amoon jom laa wax ni voilà maa ngi wuy ma ah, dama ñëw fi fekk ay nit yu benn benn ma tuuti mais dama dajeeg Safi moo bëri woon ak Paate. waaw ma dajeeg moom ne ko Safi waroo woon dóor Pathé mu ne Pathé ku ko dóorul du ko daan parce que dafa mën a bëri. moom daal yaa nga wax ne liiru ne Pathé yàlla nañ ci yàlla yóbbu. maa ngi euh, nuyu euh, Dame Diop Ngor sama waa ji nekk ma fekk ko fi léegi mu nekk ku baax vraiment. Dame Diop Ngor mu nekk suma xarit nekk ku baax. vraiment doomu nday Dieye Sène maa ngi koy ziar Dame Diop ñoo eh, nekk loolu lépp tudd lu bari nee na Pathé da saytaane la. waaw mais mais mais nii la eh. mën a mel. sa digganteeg Modou ku ne xam na léegi ni mu demee. waaw Modou Modou Lo Tapha Tine gaa yi nga koy wax. waaw combat la. Modou Lo Tapha Tine. combat bu neex la combat la. mais lan man ba xëccoo may bës nangu may bës. waa yaa ma gën a xew dimbali ma waaye ay waay ngir yàlla rasulullah. yàlla na nu yàlla defal jàmm ñun ñëpp. coow laamu jëf yaa fay bismillahi rahmaan génn ci alhamdulillahi rabbil alamin ngënteel ma ñëw tuddam la. doom la sama jarbaat la di ko ñaanal yàlla may ko ndam fils de Balla sama doom tam di ci bëre muy euh, taalibe Cheikh fils de Balla champion la ndaanaan la mhm. yaakaar la ci biir géej way mhm. le 14 janvier. waaye le 14 janvier du yomb. Lac Rose champion la waaye Fils de Balla rek waaye Fils de Balla suñu doom yàlla ko yàlla dafa jàmm. te géej waay yëpp yëpp lañ jóg ëmb ko géej waay dañoo am ay bis. suñ jógee la 14. boobu Kandji moo ko tudd ba pare tuddee ku baax. Euh, kii nu mu tudd Sakal Dieng. waaw nekk suma xarit Ousmane Sakal Dieng. Uh-huh. bisam mhm. bis bi bu ñu jël Kandji tëgg ko tuddee ko mhm. Ousmane Sakal. Mhm. def na rafet ndax Ousmane dafa nekk ku baax. Uh-huh. dem naa ba Sakal fa mu nekk. Uh-huh. Ousmane man ak moom la woon avant muy nekk maire. maire Sakal yóbbu na ma ba Sakal suma xarit la suma waay. di ñaanal boobu su bis baa daal drapeau bi ñëw Guédiawaye muy fi sa bàll jël ko di ñaanal sama mm-hmm. doom tamit te jour boobu journée boobu du journée bu attends mais Fass nee na journée combat boobu da leen a ñor ndax Lac Rose dafa bokk ci waaw ñun ñi nga xale nekk ci yoon combat bu ñoruñu fils de Balla hmm. combat bi ko ñun tam combat bi daf ñor yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm di ñaanal ñaabu ndaw combat mu jëm yàlla may ko ndam daga doole ci kalaaf yi ko ñaanal yàlla may ko ndam ñëpp hmm. voilà hmm. waaw xam nga benn affaire laa la xamal booy bi ko tontu xam nga tax du ma ko tontu wax naa leen nee naa leen moo amul jom amoon jom du tekki ngembam day dem kon bëre daa nekk xale bu ndaw wa dafa nekk xale bu ndaw waroon dem. toll li bëri du toll ma waaw eh, may leen ko mu wax nag. dernier combat moo kàll la gis nga booy bi tapet la. dernier combat moo may laa la woon doy man tapet la. mais mais paase mi ñëw dañ koy xaar fii. kan su ñëwee dina am fekk. raag la ñuy gis wala la. su ñëwee dina fekk di ñaanal guy gi combat bi mu jëm yàlla may ko yàlla may ko ndam. sa kees sa kees ko tapet boobu nga xam ne <laughs> ni ma la yàlla may ko. di ñaanal saa kees combat bi yàlla ku am géej way combat yàlla na la yàlla dafa jàmm jërë ngeen jëf.